benn Pierre. saar kon nag dëddu leen gépp coxor gépp njublan naaféq ki ñaan ak jëw ginnaaw ay liir ngeen yuy door a juddu te mos ci mbaaxu borom bi nàmp leen ci meew mu sell mi dundal seeni xol ba màgg ci biir mucc yàlla kon nag ñëw ci moom nit ñi bañ nañu ko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 wu ma tànn ku gëm ci moom sa yaakaar du tas mukk kon nag yéen ñi gëm am ngeen cër ci teraangaam waaye naka ñi gëmul doj wa tabaxkat ya sànni mujj na di doju koñ te doj la wuy fel nit di xeer wu koy fakastal dañu cee fakastalu ndaxte gëmuñu kàddu yàlla te loolu la yàlla dogal ci ñoom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 muy buur ba gën kawe mbaa jawrin yu mu yebal ngir ñu yar ñiy def lu bon te teral ñiy def lu baax ndaxte noonu la coobareg yàlla tëdde maanaam ngeen sax ci def lu baax ba wedamloo jaayi li xamul dara li leen yàlla goreel nag bu mu tax ngeen mbubboo ko bay def lu bon waaye ngeen gën a li seen jaamu yàlla te leen ñépp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 waaye su ñu leen fitnalee ci def lu baax te ngeen muñ ko jëf ju rafet la fa kanam yàlla ndaxte ci loolu la leen yàlla woo ndax kirist itam sonn na ngir yéen teg fi seen kanam royukaay ngir ngeen jaar ci tànkam musula def bàkkaar te jenn waxu mosul a génn ci gémmiñam saaga nañu ko te feyuwul fitnaal nañu ko te tëkkuwul